waay fii xal sa xol ah original neexal bu te am original pur jus de fruits Sénégal ka fay kan ngi yegsi na fay say facture moo ci gën a gaaw KPR transfert local la ñun ñoo moom di ci soññu Sénégal yëpp ñu consommer ko incha allah waaw bi diggante euh, ki nga xam ne mooy rëg-rëg en mission commando à Pikine dégg nga analyse yu exceptionnelle yi nga xam ne promoteur bi nekkate vrai analyste analyste la muy Abdoulaye Diakhaté dégg ngeen lu mu si wax dégg ngeen Abdoulaye Ndiaye tamit lu mu si wax ak Quench si euh, diggante Franc ak Ama Baldé rëg-rëg ak ki nga xam ne mooy Boy Niang de le premier janvier deux mille vingt cinq diggante Reug Reug ak Boy Niang 2 euh, mois de février le 16 février deux mille vingt cinq diggante Franc ak euh, Ama Baldé yàlla nañu si yàlla yóbbu ak jàmm suñu mm-hmm. deuxième invité Quench mm-hmm. Quench am mbégte toogaat ak yow mm-hmm. mais Quench dañ la doon xaar si saison bi yàlla may la benn combat sa diggante ak Alioune Seye deux mois après xaw ma un mois après combat bi ban jàngat nga def si sa defet boobu sa diggante Alioune Seye 2 ndax bi ngay jël Alioune Seye nga Alioune Seye 2. Ah, bu baax xam naa ko bu baax. waaw def dafa woon bokk sama plan de carrière rek. moom Alioune Seye 2. waaw ah yàqu-yàqu lii am sama làmba waaye defet moo am ay signes parce que jox nañ ma guy gi mu yàqu. Mhm. parce que ma guy gi Ablaye Diakhaté mi noonu la soree woon mu jëwlantu. Mhm. après ñu taxawlaat ko. Mhm. ba mu sori mu yàqu du ma wax turu promoteur bi. Euh, moom combat Zerko contrat bi muy sama kër. sama combat franc même chose taxawoon na. Mm-hmm. Mm-hmm. comprendre nga ay combat yu bëri yu taxaw. waaw yàqu léegi bi mu yàqoo ñu ne ma yow la en tout cas le 28 bi yaa ngi bëri le 28 avril bi moom yow yaa ngi bëri. waaw léegi su ma instant waxtaan man Alioune Seye dañ taxawal combat yi ba ma ko. su ma mm-hmm. ñëw Moussa Gueye ne ma jël nañu avance bi ma ne ko man bëgguma combat bi mu ne ma daal jël nañu avance bi. te nag nit da ngay am kilifa. waaw laay mi noonu la si meree ma ne nag doo joxe sa bopp raw ci sa làmmañ mhm. kon que jël avance avancé mënuñu lu dul dem entraîné ji bëre. Mhm. kon nga mu ñu fekk ñu ngi entraîné. mais pourquoi mosoo sóoraale Alioune Seye 2 si sa plan de carrière lan la. non maanaam xama làmb yoon la te Alioune Seye bu fekkoon ne tegu na si yoonu làmb heure bi ñun duñ ko jot kon heure bi mu ngi si ñoom Modou Lo. Mhm. ñoom Balla Gaye parce que ñooy la départandoo. waaw mais dafa retard. waaw comprendre nga. ñëw war a suuxale ko si te tey exploit loolu la am. Mhm. exploité ka waaw comprendre nga mais boo xoolee ba tey da ngay xool Alioune Seye bi muy bëre man xalaatuma dugg si làmb di bëre. Mhm. man seetaan naa combat am yaakaar naa 2005 moom moom Modou Lo 2006. 2006 mhm. boobu man xalaatuma sax. ne damay dugg si làmb. comprendre kon bu la yàlla dogalee ngeen di dem di dem di dem di dem. mu toog bëriwul bëriwul bëriwul ñu jox ko isaapu yi. jox ko fi sos. ñoo xam ne bàyyi woon nañu presque. jox fi Modou Anta. comprendre moom mu ngi bëre benn mbër bu jolool si defet si man kese la ko bëri mais yeneen mbër yi mu bëreel yëpp daf fekk ñu si defet hmm. comprendre nga man loolu moo taxoon gisuma woon moom hmm. léegi nag mais yàlla nag mooy doxal lu war a am day am combat bu pare woon nga est-ce le plan physique combat boobu physique li ma gën a rey sax yu métti maanaam dem ba romb niveau li ngay entraîné hmm. di entraîné ne yaa ngi si koor kël ci ne woo koor man koor gi rek quatre séances laa def quatre séances yu barke Serigne Babacar te dégg naa koy sa entraîné wul comprendre barke Serigne Babacar si du ma ko waatee caaxaan. dëgg la dégg ma de sama àdduna dama na ma demoon ba si fen sax. Mhm. ruus naa si tudd sëñ Babacar. barke Serigne Babacar si quatre séances laa doon entraîné. damay box dem contact. Mhm. jóge contact dem entraînement diine jóge diine dem saa. waaye man lamb dama mën a teree woor. day entraîné ba pare guddi gi mu jóge fi fee jëm yéen. ñun ñun kii dañ daan ñëw bi ñu ñëwee lantaar. ci mhm. daan fay sax lu may rus lépp keroog dama koo def laajte du ma bàyyi ma lu ci ginnaaw def. Mhm. dama ka ko ñeeñamtal dama def ba du ma bëgg a tee sax yàlla na bañ a entraîné sax. Mhm. ñu di ko teg loo xamante ni coince bi daawul na ñun ay taalibe see lañu ñaari yoon rek sonn damay may ndox mu di ma baara ay per max ay ñoom per seen ñaa ne ma doo ko may ndox fii nii mais boobu sama xol du ko mën a muñ ndaxte man xam naa lu muy daj. Mhm. ndaxte bu ñu entraîné ba pare après guddi gi muy def rek. waaw loolu après yow da nga yaram sax. ndeysaan barke Serigne Bamba. léegi ñu ay taalibe waaw xam li ñu suñu tarixa bi teg. Mhm. ñu xam ka moo tax affaire u làmb. làmb moom préparé naa koor presque bii mooy cinquième combat ma si préparé ko. Mhm. ma jéem neuf jours la ma Alioune Seye moo doon dix huit ma. la grosse ma dóor. maa Lac Rose huit jours. huit jours maa double moteur presque ay ay sept wala huit daal. Mhm. yooyu yëpp si koor laa ko préparé ñu génne si koor gi dugg si combat bi. loolu tam maa Tafa Gueye deux tamit même chose. si koor la yu bëri. Mhm. maa mhm. dañuy koorite bu bëri yooyu yëpp si yooyu moment boobu la toll. daa am lu ñuy gëm. waaw mooy lan. mooy que yow làmb foo la ku daanu rus. liggéey la. sa liggéey boo si nekkee bu julli jotee da ngay dem julli bu mm-hmm. koor jotee da woor man loolu laa ko jàppee woor naa ko si jàmm salaam. Mm-hmm. yàlla dogal na ne du ma du ma yàlla du ma may onze mois yoo xam ne mm-hmm. damay lekk di naan mu teg ma benn weer na ma kaay nga santa ma wooral ma woor koor bi ma naan noo combat bee taxaa dugg na fi génn na fi man loolu déggoo li ma la maanaam entraînement yu métti waaw moo ma gën a indil handicapé si làmb ji mais est ce que tamit xaru woon quatre séances par jour. si non la xam na ne du xaru man sama yaram loolu la tàmm loolu la xam bu ma ko deful sax damay feebar sama yaram si boppam moo tàmm loolu. Hmm. bu ma amee combat moom tant que defuma quatre séances du ma gëm ne maa ngi entraîné hmm. parce que damay noppalu deewu ma fenn seetu ma kenn. waaw maa ngi kër grand Moussa Gueye di profité di ko nuyu bu baax grand Moussa Gueye. Hmm. di ko siyaat di nuyu Maam Mori Gueye Ibrahima Aïssa Baye Alifa. borom seex yi. comprendre nga di leen nuyu bu baax. Mhm. di nuyu bàyyi Asgay Diop. Mhm. tey man bu ma deful quatre séances pour man entraîner wu ma. d'accord waaye léegi bi arbitre bi sifflé. Mhm. génn seen diggante. waaw man dama gëm ne ne jàng naa xeex. waaw samay combat yu mujjee yëpp si xeex laa ko gagné muy maa double moteur. muy maa Lac Rose. loxo lay xeexee nangul naak te mooma dal si laa daanu. dañ nag xeex nag la tëri la. waaw parce que tey ñun ñuy entraîné ñëpp nañ ne maasu lii lu la si laal nga daanu. Hmm. baaraam sax bu la si man nga daanu. dëgg la évité nañ ko mais loolu la yàlla dogal sa ba. man nangu ko nag ñi ñëw na maan bu erreur bi nii erreur bi naa benn erreur laa des si làmba ji mooy déplacement fi ma dugg si gardam mais à part loolu amul benn hmm. na ma kuubu dal ma dóor ko kuubu dal. Hmm. comprendre mu dóoraat ma ma dóoraat ko. au contraire benn benn bi sax maa ngi si mais bi ma duggee si gardam la foofu te dama ko dama ko doon mosu tere mbër. feel bu bu koy bëreel booy dugg si garaam mais tant que maa ngi déplacé wu gauche suba suba du ma doon. mais boo waree daanu cuune ngay doon te défaite moo am ay signes. combat boobu yow woo defoo dara de. déggoo ma de. combat bu la naqari déggoo li dama ko bëggoon indi indil xee ba mu yaakaar dama xee si ma ñëw juum loxo far yàlla Alioune tey moom ma mag si laa ma. Mhm. comprendre nga mu exploité loolu. xam ne ne man damay ñëw si koom. Mhm. mu tëj garaam farme wu. Mhm. mag koy tooñ di ko cokkaas mais ba tey nanguwul jox fi mu taxaw. ma ko du jox. ma koy déplacé mais bi ma ne dama koy déplacé dugg si garaam fa la exploité li am. dëgg la mooy bi ma jël. Hmm. pare si laa daanu ma jox xam ne tamit boo toogee treize ans de carrière daanu woo ñu ñëw daan la. waaw da ngay sant yàlla dem muñ te xam ne doomu jàmbur nga doon daal. mais Abdoulaye Ndiaye na la de. non oh, defet bi. ah non non loolu góob ma ne sax dina ma dayoo. samay doom ñi ñu àndal hmm. ma néeg bi. duma jour la ma door a ma door a ñëw kër ga. Hmm. mais mu dem te suba xamante ni loolu dama ko ciy saluer. Mhm. moo tax chaque jour damay jàpp ne sax moom dugg ne. maay mhm. na moo ko mag. chaque jour mbay bi bu daanee mbar dama na kan yow lan moo tax boo daanee doo daw ci bile. mu ne ma papa mu ne ne ma bés dana ñëw ñu dóor ma fii ma daanu. Mhm. wala ma wala ñu yenu ma bu biir dóor suuf. bu boobaa ñi may daan gënu ma leen. moo tax bi ma dawee. daanu nii boobu sama tànkay damay ma ñëwee côté que nii. mu ne ma lii laa la waxoon dama daan daan doomi jàmbur te jii damaa war a daan kon ma bàyyi bëre bu mu ko waxee rek laa bës samay rongañ ma ne teetuma ko. dëgg la nelaw ma yow ko ko woon. non dafa bokkul ci carrière bi xëy na sax moom bu ci jaaree man ma jaar ci laaj ko koo nangu. boobu dama fekk ma dem waas yóbbu benn luyaas fuuta laaj mm. ko li ma la wax nii fi ma nekk ma aw ma réseau mm. aw lu war a mat cinq jours bu mu ñëwee laaj ko mu daal di ma wax mu ne ma dañuy bañ nga mer avance baa ngi nii ma taxaw kewe mer di sol gasoil man nga bu dee ay Alioune Seye fiir ci boppam du bëgg nga jàpp ko du lay dóor nga daal. musuma mm-hmm. koo ŋaang. maa ngi koy door a ŋaang tey. Mm-hmm. kon xam nga ne xel na ñun boole ñu ko suñu carrière. dëgg la te Alioune Seye dañ koy féliciter ndaxte tey jii nii mu doon nit ku baax. mel ni mm-hmm. comme booy bi ñaaka ki ñaan. waaw làmb moom nit il fallait que bul soxor. dëgg la ñu mel donc noonu lañ ñaan yàlla mel. moom maanaam léegi léegi yow nga nekk. man li ma gën a rey si làmb jooju dama koy waxaat fii. allez-y comprendre mooy que maanaam tey da man coach Alioune Seye moo Cameroun maanaam coach bi ngay entraîné boxe. Ah. man nangu naa ne kooku moo ma daan. si naka. waaw ah. parce que bii nag Alioune day day dóor Coen si mu daan dama ko bëggoon a xamal ne dóor dóor kese la. Mhm. mais bu fekkoon damaa ñëw bëri si du demee noonu. Mhm. est ah. mais dama na faaw li mu wax li mu wax nii. foog nga dindi tuuma. faaw ma dindi tuuma. far lii lii lii boo xam moom la yàlla di dogal ndakete mais man musuma këlkin Alioune Seye man fu ñu mosee wax ma ne kii benn loxo lay yee mhm. fu ñu mosee wax loolu laay wax comprendre nga man mhm. mbër man maanaam tey bu may am combat ki ma mhm. gën a soxla mooy ñu ne ab xeekat la parce que xeekat boo koy jàpp day fekk mu mais da lay bëgg defet bi dafa des si ba léegi de non non non non man biñ ma daanee ba si guddi gi ah. ma ñëw suma kër fekk nit ñi di daanu di jooy ma jël sama basang fay tàkkusaan fay timis fay geewe julli ñaari raaka sant yàlla kon bu ma doon daan ni ma koy defee ma ne leen mais yéen gëmoo leen yàlla mi miy maye mhm. man bu ma doon may sama bopp du làmb laay abte dëgg la lii la yàlla dogal boo leen ko nangoo alhamdulilah boo leen ko nanguwul alhamdulilah mais man mii bëri mm. xam naa ne lii la yàlla dogal te defet bi fàtte naa ko bés ni ki tay bés ni ki tey léegi nga nekk mbër bu jafe utal adversaire mhm. nga daanu si Alioune Seye 2 que sa làmb gënul am jafe-jafe waat waaw mënul am jafe-jafe parce que amul. lu taxoon jafe-jafe parce pour nga am problème combat. xam lu taxoon léegi yow nga daanu es ce que du gën a ja am jafe waaw parce que xam lu taxoon. Ah. tey dañu toppoon man dama naan lii defet bi cet yu génne sama yaram la. parce que tey nga topp benn doomu jàmbur Coence dafa am gàllaaj Coence li muy ngemboo fu ne ngembal Coence rek la ñuy tudd ñu ngembal Balla Gaye. Mhm. tudd ñu ngembal Modou Lo. Mhm. topp coins li muy ngémboo mhm. mbaru penc la mhm. ku ko daan di wax guddi ba cëg ma dafa doon toog ba tiit sama bopp ma ne si làmb maanaam tey li ñuy wax si man yal na ma yàlla musal mhm. si làmmañ boo xam ne tey day topp sama ngemba di wax maanaam man sama ngemba si làmb lañ ko lekk man nangu ko nag xam ne lii léegi kon nga daanu naa ñoom dinañ gëm ne ne léegi daanu na da ngaa jàpp ne léegi da ngaa jàpp ne gars yi nañ ñeme waaw parce que xam nga hmm. mbëri demoon nañu ba koon a koen si sax hmm. mu ne la noodu daanu hmm. léegi nag kon ka gis nañ sama defet te bu paree defet bi li si gën a garaaw waaw mooy dañ ma dóor ma tëdd nga tëdd ma jox xool waaw ma aw ma benn problème comprendre nga mën na noo dóor mu daanu ndakete dëgg la dëgg gëm naa xam mosuma ko gëm na waaw léegi ñëpp nag sa combat la ñuy xaar nga jox avance tey adversaire yi bari na lu lu mun nañ fi lim lu ñu jeex tey sa choix si kan la gën a porté wu. waaw parce que man su ma choix li tax may tudd mbër yi. waaw parce que ñoom ñoo tax wax si man man waxuma si ñoom. Mm-hmm. la de guerre moo na damay may coin sa sens daa dafa yaru. Mm-hmm. ma ne que grand bu mu doon. Mm-hmm. waxu pour baab ma. waaw am seen taxaw na coin sa daanu na mais mbër la. boo koy bëgg naa am naa rêve. waaw pour may ko sens. may bëri vidéo di nuyu suma suma tànn hujja tamit. muy jabaru ama seen man ñaanuma ama seen changé fu jëlaana ama seen ngénteel Ibrahima Aïssa uh-huh. ma ngay siyaar bu baax Ibrahima Aïssa Mamori uh-huh. dama bëgg ama seen bu pare saakees may ma chance mu ne ma dinaa ko wax sa yóbbante uh-huh. amaana tamit loolu la wax moo tax ama na dina ma may chance dëgg la te ba nii fu jëlaay ñaan chance ñaanuma ama seen changé ba nii comprendre nga la déggee tamit moom mu wax lool waaw man foofu laa ko teg mais à part loolu maa ngi toog di xaar lamba comprendre ñun dañu sori mais li ñu téye si làmb mooy suñu victoire mhm. ak suñu mbooloo man amul mbër yi fi nekk di yuuxu ñëpp waaw amul ku mhm. lu ma mënul mobiliser loolu am na loolu ay waay féexal sab xol ah original neexal bu da original pur jus de fruit Sénégal ka kan ngi yegsi na KPA transfert locale la ñun ñoo ko moom. di ci soññu Sénégal yëpp ñu consommer ko.